man je suis constant mbiri CNG du mbiri la du mbiri mbër du mbiri keneen mbiri état la état mooy tànn ñi mu am ci ñoom yaakaar dénk leen li nga xamante ne moom mooy développement làmb wala beneen discipline boo xamante ne ci condition yi la ne donc loolu du lu may discuter vraiment ak euh, ku mu mënti doon euh, parce que du loolu moom mooy defar làmb liy defar làmb mooy boo nekkee ci mbir am ci xalaat da nga koy wax surtout lu jëm ci règlement dañ koy wax pour defar li may ñaan ñëpp daal mooy na ñëpp ànd ak daal te kuy wax nay wax wax juy defar parce que làmb suñu yëf la kenn warul wax lu ko yàq wala ngay taxawee noo xamante ne dafay yàq làmb tey euh, CNG choix wu état la comme ni ma ko waxee état mooy gunge état moo yore làmb ji di jàpp tey defe naa ne encore une fois invite bi may def ñi bokk làmb yëpp mooy ñu mobiliser wu fexe nu ñu defee suñu inauguration arène nationale bi mettre ko en service pour gën a développer làmb loolu du tere képp ku ci am mëbët boo xamante luy defar làmb la ca waxtaan wa dinañ ko jël en compte la ca mën a nekk dana nekk la ca mënta nekk ñi bokk làmb ñoo naan lii mënul nekk. avant ñoom. Eh, kuy dem marché nag moom de ko bàyyi rek gàddu pañam dem marché ba xam lu mu ciblé eh, loolu xalaat bu baax la waaye ñun xam nañ ni ñuy taxawee ak ñoom ak ni ñuy waxee ñoom biñ ma joxee mémorandum bi liir nañu ko. am na loo xamante jot nañ leen ca tontu am na loo xam ne tontu ñu leen ña leen war a tontu ca biir waxtaan ya dinañu comprendre parce que waxtaan bu amee rek comprendre am xam nga li bon mooy ñàkk wax mais waxtaan bu amee rek comprendre am ñi nga xamante ne ñooy mbër yi ñi nga xamante dañu nekk en activité wala ñi nga xamante dañoo bëre ba bàyyi CNG kenn mënut a tëj bunt ya parce que CNG pour ñëpp la. mais nit ki boo koy seeti aussi da nga koy demander mu recevoir la nga am noo fa demee waxtaan ak moom ci njëkk ak teranga parce que defe naa ne ñoom mbër yi li ñu bëgg damay rafet njort ci seen taxawaay dañu bëgg làmb ji gën a baax te ñoom seen coono wàññeeku CNG dañ fi ne pour taxawal réew mi pour làmb jëm kanam waaw ñi bokk objectif war nañoo mën a waxtaan. te du am fédération bi ñuy wax nag fédération bi est-ce que keroog dégg naa nga dànkaafu leen ci fédération ndax su amee. dànkaafu ma kenn damay wax loolu ma wax dama ne waxtu wi ñu toll nii. ci CNG la ñu nekk fédération bu jotee ba ñu taxawal li ñu war a taxaw parce que il sert à rien tudde dara fédération te amul mécanisme yi tax mu fonctionner heure bu ñu tolloo ci lu tax mu mën a fonctionner ci loolu rien n'empêche qu'on revienne mais fii ñu toll nii may wax ak yow loolu nekkaguñu ci loolu ñu ngi ciy xalaat mais nekkaguñu ci loolu parce que fédération nit ñi dañ koy wax te du ñu wax promoteur du ñu wax dara fédération football est-ce est-ce ay promoteur privé ñooy bi defe naa ne du loolu c'est la fédération qui organise avec ses chartes fii tey ay nit ay ñëw investir seeni million pour wut xaalis loolu lépp da nga ko a jël en compte jël bëre yépp dans sa globalité en compte parce que làmb Sénégal du dóor rek am na yeneen façon làmb loolu yëpp réflexion la boo xamante ne bërët rek yegg ci du ko andi parce que expérience wane na ne fédération amoon na waaye préféré nañu ko CNG la tax ñu préféré bu yéen ñii journaliste bu ngeen ko gëstoo di ngeen ko xam te ma leen dimbale nag yéen ñi nekk ci làmb ji te yàlla def seen xel màcc ci wàll woowu yéen a ko tànn ngeen di ci gëstu di ci partagé parce que bu làmb doxee ngeen doxle mais bu yàqulee ngeen yàqule loolu loolu da ko war di sooraale ba nga xamante ne ku nekk ci juum ngeen tegal ko loo xam bu ko liiree dina xam ne dafa juum mu mën a gaaw a rectifier balaa yàqu-yàqu di am juillet dinañu jot suñu caabi kañ la ñuy def inauguration président Macky Sall ci jotam dana ko def mais je vous informe que juillet dinañu jot li nga xamante ne mooy caabi yi boo fa demee sax presque ku bëgg tëgg làmb tey jii kay buñ doloon buñ yow mun nga faa sax dem tëgg làmb suba ouverture officielle bi président Macky Sall di ko joxe caabi yi mettre ko en service loolu bu jotee dinaa leen ci wax.